sama gaay yi mag dina juum xale yi dina juum sama gaay mais mun nañ ni Pa Ndiouga juum na ba pare nanguwul ni juum na ba pare bëgg a jël lum juumee daal di koy buux yëpp kii di Khalil te la moo waral loolu muy euh, décision yi nga xamante ne moom la jëloon si Bambi ba li nga xamante ne fekk na ko si moo tax nag pour l'instant kii di Pa bis bu jëlee Bambi daal di koy may Khalil sama gaay yi dina ko rëccu carrément les gars ndax trop ou tard kii di euh, Pa Ndiouga dina découvrir que ni euh, Bambi daa nekkoon di ko fenn si propos li nga xamante ne moo nekk doom bi te boobaa a rëccu la moo tax mu daal di jël xale bi daal di koy may ki nga xamante moo nekk Khalil moo tax pour l'instant lenn rek moo nekk si bopp bi muy euh, rattraper li nga xamante moom la yàqoon euh, moo tax nag pour l'instant du dégg du gis moom lenn rek la bëgg mooy daal di takkal ki nga xamante ne moo nekk Khalil Bambi ci sama gars yi loolu c'est pas question que muy def loolu noonu ndax kii di Khalil moo ngi mëne euh, nu mu waree sama gars yi actuellement ni amul lenn luñ ko war a reprocher ndax loolu noonu mun nañ ni c'était passé comme ce n'est pas d'importance loolu tolloon di war a ñëwaat di yàqaat li nga xamante ne moo nekk avenir am di yàqaat li nga xamante moo nekk vivre ba am actuellement ni lenn rek la nekk di réactionné e woon ni muy yëkku nopp sama gars yi kii di yëkkalil euh, bis bu toppee ki nga xamante ne moo nekk papam ñun ñoo ñëpp dinañ ko rëccu moo tax nag peu importe décision yi nga xamante ne moom la papam di jël na contre kii di baam bi muy doon soxna boobaa dina ñàkk jabaram bi nga xamante ne mérito na doon jabaram te boobaa dina tas kër gi ndax euh, di kii di baam bi dina ñëw sëy si gaale bi dina yàq kër gi ba pare dina yàq mbokk ji yëpp sama gars yi loolu na maa leen ko wax motax nak pan ju gëna tok saytu wat li nga xamanteni mom la ko bambi wax pour mu da xam ndax xam bambi day fen wala fenu ndax yow mën nga ni am nga dom ci all bi ba paré ba sa dom bi mag te yow ñëwoo li jëndi papa nga bay ba dernier moment ngay di ngay li jëndi papa sama gaay comme fofu am na ben eh, ben mbir bi nga xamanteni mom nga bëgg te ba légui nangul wax lan la motax nak pan ju gëna def attention carrément ci ki nga xamanteni mo nekk bambi bambi fen kat bu professionnel la motax nak pour l'instant ki di pan ju mom lenn rek la gis muy mooy euh, erreur bi nga xamante ni moom la defloo bi ba mu retrouver ci situation yi ba pare bëgg a jël tort bi yëpp teg ko ki nga xamante ne moo nekk Khalil sama gars yi Khalil du mës a nangu loolu jaa jëf les